تركت ما كان لي بالبيع مبتغيا والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ñu ngi nuyu jiital suñu nuyoo ci euh, suñu kilifa euh, sëriñ Mamoor Mbakke mu Cheikh Mouhamadul Mourtada di ko nuyu bu baax a baax te di ko ziyaare tey fab nuyoo bi itam di ko teg ci loxoom mu jottali ñu ko alxalifatul am sëriñ Muntaxa Mbàkke di nuyu uh, mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoom lañu àndal ci toolu sëriñ bi mu ànd ak ñun ci liggéey bi te mësuñu ci daj benn yoon mu ñi nga xam ne ñoo toog ñu ci wetu sëriñ bi ñu ci tuddee sëriñ Cheikh na sëriñ Mara Dieng sëriñ Mara Touré ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoom lañ ko bokkal ñépp nuyu na leen ñoom ñépp ziyaare leen di fabit nuyoo bu tedd tedd di ko jëmale ci mboolem jëwriñ yi nga xam ne tey ñoo fi teew tey ci barab barab bu sell bi bu màgg bii teewal fi itam mboolem taalibe yi nga xam ni ñoo lañu bokk liggéey bi te yàlla dogal ak suñu ak teew ak ñun ci jataay bii ñu di nuyu bu baax a baax di leen ziar te itam di leen jaajëfal ci yitte yi ak euh, dogu gi ci teew ci barab bii di nuyu bu baax na delluwaat di ziar bu baax sëriñ Mamor li ma ko waxe léegi ci tàmbali bi ñaan suñu boroom subhanahu wa mu woyofal bu baax yan bi woyofal bu baax a baax a baax ndax gis na gan waaye nag yëgu ko ndax mi ngi ko yano ci kaw pas-pas ci kaw ngëm-ngëm ci kaw ak dogu ci kaw tam ak fit kon loolu ñu ko ci ndokkeel bu baax a baax te di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu gën a woyofal yan bi ba fa mu bëgg mu àgg fa yépp mu àgg fa yàlla mën na ko yàlla ko suñu borom defal bu loolu jàllee ñu ngi dellu di ñaanal sunu sëriñ Cheikh na Mouhamadou Mourtada yàlla yokk ay maqaamam yokk ay darajaam te fa mu tëdd fa mu tëdd ak mbooleem waa kër Sëriñ Tuubaa xam na ni bokkoon na ci ay joxañam yu mu daan wax nii kenn ku ci nekk am na ab buntam ci Sëriñ Tuubaa na nga ko war maal bu baax a baax ku fi nekk itam Sëriñ Tuubaa na ngeen topp ci ginnaawam te déggal ko bu wér a wér itam lii nga xam ni moom ngeen bokk yéen ngeen àndandoo takk ba dëgër fasu te nekk benn te boole seen xalaat boole seen doole boole seen ñaq ndigal loola nag jur na lu bare bare jur na lii tey jur na tey ci mbitim réew waaye comme ci Italie moom lañuy wax ay lu bare bari tey ci taaliba yi booloo nosu ba sos fa ay kër kër yoo xamante ni këru lislaam ci comme na mu ko fa daan tuddee may nañu itam ñu ànd di yëkkat di doyandoo di dóorandoo di boole sunuy ñaq comme niñ ko defee tey jii ngir bëgg a ki nga xam ne moo fi nekkal Sëriñ Tuubaa mooy Cheikh Mouhamadul Muntaqa yal na ko fi yàlla yàggal lool te woyofal yan bi bu baax a baax a baax a baax euh, kon man ginnaaw bi ñu leen dalalee ginnaaw bi ñu leen mm, tatagalee li ma ci wax wax ju gàtt rek la wax ji itam ñu ngi jëm ci barab bi ñu nekk ndax man yàlla dogal na euh, la sëriñ Abdul Ahad waxoon ni ki juddoo ci gent bi ki juddoo ci làkk bi mën na xam lu yokk ci lu yokk ak lu wàññeeku ci mën na ko bañ a xam waaye ki ki juddoo ci gent bi lu ca yokk wala lu ca kii mën na ko xam mu xam ko wala lu ca wàññeeku xam na fii di barab boo xam ni barabu sàkk xam-xam la barab la boo xam ni buy yar ay ndaw la di leen xamal seen diine di leen defar itam ngir ñu génn dugg ci société boo xam ni dañ cay participer ci wàll yépp yàlla dogaloon na euh, ki nga xam ni mooy almujahidul akbar ku na xam na liggéey boobu la mu ci def mu yaatu lool rëy lool tasaaroo loo fu ne yàlla dogal liggéeyam jeex mu dellu ci boroomam ñaan di yeesalaat suñu ñaan suñu boroom yokk yërmandeem yokk njëggalem ci moom yokk ay maqaamam ak ay darajaam ba tey waaye ku ne xam na ne liggéey boobu fa mu ko bàyyi woon euh, weesu na tey fii weesu na fa mu ko bàyyi woon yaatu lool yaatu lool ndax ñun bi ñu fiy nekk booba melul woon nii waaye tey jii ku fi ñëw tey di nga gis ni yokk na lool ba ci fii toog ba ci jamia Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamante ni moom ngeen di gis nii te amaat yeneen yoo xam ni ay sémb la yoo xamante ni taxaw na te loolu lépp ki nga xam ne moo ci moo ci def loolu lépp mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada Cheikh Sëriñ Mamour mii kon nag wàññiwul waaye yokk na wàññiwul waaye yokk na te taxaw na ci taxaw boo xam ne kenn ku ci nekk mën nga teg sa baaraam ci li nga xamante ni moom la ci jëf moom nag bëggul sax ñu di ko wax ndax li muy def xaaru ci xaaru ci xaaru ci kenn li muy def mi ngi koy def te itam mësuñu sax laaj lenn loo xam ne lu jëm la ci lii muy liggéey waaye nag ku ne xam na ni ñun ci wàll ci Europe wala ci diaspora ameel nañu njukkal Cheikh Mouhamadul Mourtada lu rëy rëy loo xam ne jàpp naa ne képp kenn ci ñun ci yéenam ak pas-pasam bu mënoon def lu mel nii dana ko defal boppam waaye nag kon war nañu gën a bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax liggéey bi nga xam ni deful ko boppam waaye réew mépp la ko defal senegal yépp la ko defal deful ko itam tariqa muridiya rek waaye mboolem turuq yépp la yoo xamante ni kenn génnu ci kon nag loolu war nañ cee gën a jàpp bu baax a baax a baax gën cee tamit def suñu yitt yi tamit bu baax a baax ndax loola mooy li nga xam ni suñu ndimbalal bopp rek la suñu ndimbalal bopp rek la am na lu ma fi fàttaliku woon fàttali woon ci bu yàggul maa ngi koy delluwaat di ko fàttali am na lu ma fi fàttali woon fàttali woon bu yàggul maa ngi delluwaat di ko fàttali te ñun ñépp ñu bàyyi ci ay ñu bàyyi ci xel ndax loola jëmul fenn lu may ci liggéey bii Euh, danañu ko gën a fàttaliwaat tey ñaan ñépp ñu bàyyi xew xel ba loolu àgg kon daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi ñu amee ay kilifa yoo xam ni seen woote yépp ak seen bëgg-bëgg yépp mooy lu ñuy jëmale ci loo xam ni suñu njariñal tey la ak suñu njariñal ëllëg looy mooy loo xam ni suñu njariñal tey la ak suñu njariñal ëllëg mooy loo xamante ni njariñal mboolem jullit yépp la kon nag loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax te ñu xam ne lu ñu war ñun mooy ñu taxaw ci seen wet ci bépp jamono ak ci bépp waxtu ndax Cheikhul Khadim moo ko ñaanoon suñu boroom وصير الجميع لأنصارا وصير الجميع لأنصارا بجاهه ورد للأنصار yàlla moom tàggatal nañu mboolem gox yépp fu ne taalibe yaa ngi fa fu ne bokk jullit yi ma nga fa kon nag lañu war a taxawe nag ñun ci wetu sëñ bi mooy la mu bëggoon ak la mu jàppoon ñu jàpp ci bu dëgër la mu bëggoon ñu di bëgg fa mu ñu joxonoon tamit ñu joxoñ jëm foofa kon daal ñoo ngi nuyu ñëpp euh, di leen ziar bu baax a baax tey ñaan suñu borom subhanahu wa taala euh, ñu dajawaat fi ay at yu bare bare euh, yàgg fee tam mm, jëf lu mel nii xanaa di fàttali sëriñ bi rek nii at yi ñu toll yi ñu ne ku ne xam na ne Euh, am na lu gaa ci àdduna bi yépp te mooy mbas mi tënk na itam lu bare bare bari yoo xam ne tax na euh, lu daan am lu ne lu ca bari amatul wala lu néew rek moo ca am waaye yàlla dogal na ni nga xam ne noonu nga ñu ko fàttale woon ci jamono yi nga xam ne moo doon bisi Sëriñ Tuubaa yi ca Touba Italie mboolem jëwin yi fi nekk yépp ànd ñu ko kilifa yi yépp taxawe nañ ko ci anam yu rafet taxawe nañ ko ci anam yi nga xamante ni noonu nga leen digalal te mooy fu ñu mënti nekk donte ni mënuñoo génn sax waaye nañ ko dundal nañ ko dundal ci dellu ci xasida yi seen kem nañ ko dundal ci dellu ci seen borom ko tuubal ak di ko jéggalu ak di ko ñaan ndax moo ni ñaan leen ma may leen te doomu aadama amul benn ngànnaay bu gën a rëy ñaan loolu may seereel sëriñ bi nii mbooleem jëwriñ yi ak mbooleem ñi nga xamante ne ñoom lañ ko bokkaloon ñépp ca Italie taxawe nañ ko ci taxawin bu rafet def nañ ko tafet ci anam yoo xamante ni yu sell la yu sell sell euh, la xam ne tamit moo doon ci wàllu jàppalante ci seen biir loolu lépp defante nañ ko ci seen biir kon daal sëriñ bi euh, mboolem joxoñ ak ay laabire yu seer yi nga xam ni sëriñ bi baaxoo woon na di ko génne ci seen jataay ak bokki taalibe yi loola taataan nañ ko jëfe nañ ko tamit ci anam yi gën a rafet ngi leen di nuyu di leen lépp loo xamante ni lu ci dëng ci ñun la waaye ak ñàkk mën a leeral waaye nag suñu xol ëmb na lu yaatu yaatu yaatu ëmb na si tamit ay fàttaliku yu rafet yu rëy ëmb na fi tamit lu baree bari loo xam ne euh, wan nan rek ni euh, tànk ginnaaw amu fi waaye tànk kanam rek moo fi am wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu di yeesal sunu siyaar ak sunu jébbaluwaat nun dongo yépp di ko teg ci loxob sëriñ Maamoor Mbàkke mu àggaleen lu ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàlla bàyyi lool amiin ñu wér lool yàgg suñu kanam lool lu yàgg a topp seen ginnaaw yàgg doon taalibe di liggéey te sëriñ bi rekk tax waxtu wi xat na te dafa tàng te sëriñ bi toogaay bi mi ngi bëgg a yàgg te li muy wax moom nu dégg ko moo ëpp njëriñ ci ñun ñun di waxal suñu bopp kon dañuy soññe rek soññe bu gàtt nun ay taalibe sëñ Tuubaa lan yoo xam ni nun su suñu yaakaar jëpp tey ëllëg ak li mënta ñàkk ci loxob sëñ bi la ko suñu borom teg kon nan gën a góorgóorlu bu baax rek ci lépp lu nekkal ci takku liggéeyal sëriñ bi dooni taalibe jub xocc tey jaamu yàlla topp ginnaaw suñ jëwriñ jiinu suñ borom booleel nga xam ni Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacke góor yàlla moom la suñ borom dogalal mu waaxu ba fekk nu falu la ci Italie di jëmmi sëriñ Tuubaa di ko gis di xettali ko ci moom di dimbandi ko ci moom yërmandeem ju réy ji nga xay boo boo ko xoolee kersaam gi te bu la xoolee rek sa aaju yëpp faju musiba yëpp tàqali kook yow loolu la suñu borom defoon ci moom te fu ne fekk nañ fa dimbali lu ñun ñëpp xam ngeen ni Italie jàmm jan fa am ak teraanga jan fa am ak na réew ma demee te seen sart réew ma fii boo seetaan ñi ko fi xam matul fukk ci suñ coobar rek lañ doon doxe kon loolu xam ngeen yëfi sëriñ bi la kon ginnaaw bu nu santee sëñ mu baara mii suñ jëwriñ ba noppi ñu ngi wax ci turu mag ñépp fii am na fi ñoo xay ñooma mag fop mhm. am na fi ñoo xay maa leen mag fop samay doomu fi ne ak samay jarbaat waaye samay mag a ngi fi mhm. bàyyi daal laa fi amut waaye am naa fi mag kon nag ci seen kàddu lay wax nun dey lépp lu nu man ci taxaw ci ginnaaw sëriñ bi liggéey ko sëriñ Touba fas nañ ko yéene luñ ci defut noo ngi ñaan suñu borom mu manal lu ko ban man koo def nun daal amunu dara luñ bëgg lu ngërëmul sëñ Tuubaa amunu dara yitte lu ngërëmul sëñ Tuubaa loolu nag sëñ Maamoor da xam ni yow mi nga xam ni yaay suñu jëwriñ di rakki sëñ Muntaxa ngeen bokk sëriñ bi mu yilif la ngeen yilif lu na ngeen xam ni ngërëmul sëñ Tuubaa képp lañ bëgg bëggulu leneen lépp luñ mën a am daal lu ngërëmal sëñ Tuubaa lu ngërëmal sëñ Tuubaa nu ko gënal kon nag na ngeen di ñaanal ban am ko ci barkeb sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum macha allah